li nga xamee ni moo jëm ci daara yi Mamour. Baye Cheikh comme ni nga ko waxee rek dañuy delluwaat ci beneen barab boo xamante ni alquran moo ñu fay yóbbu muy Kër Mbaye Fall ci daara bi ñu duppee Serigne Babacar Sy radiallahu anhu oustaz Adama Fall moo fa nekk di def liggéey bu am solo ci wàllum jàngaleem alquran ñu seqoon ak moom waxtaan bu am solo waaye bind biñ ci sësale tey mooy mokkal alquran ba noppi fàtte ko ana yan conséquences ci nekk wala sax lan moo koy waral moom mi indi leeral yu am solo dañuy dem seetaan élément bi suñu del see yaatal الأحد ذكر رحمة ربك عبده زكريا asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di kontaan nag ci teewaay bi nga xamante ni moom ngeen teew ci daara xalifa Ababacar Sy radiyallahu anhu daara ji mi ngi soso Kër Mbay Fall le 14 janvier 2004 وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا programme daara ji euh, lu aju ci wàllu njàngin mi mooy bu ñu xëyee euh, huit heures la xëy si mais dugg neuf waaw di jàng ba midi et demi ñu wàcc deux heures euh, ñu julli après añ trois heures pile ñu duggaat ci njàng mi ba cinq heures et demi cinq heures ñu julli cinq heures et demi ñu defal leen orientation maanaam waxtaanal leen foofu quelque trente minutes yoo xam ni euh, daañu mën xam seen wàllu diine ak li ñuy jàng moom lan la leen di jariñ ëllëg en même temps ci programme bi xale yi dañu fi sport wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as wa atina az-zakata wa atina allaha ba tey mokkal alxuraan ba noppi fàttaka loolu ku ko def euh, wala nga sàggan ba su doom def ka euh, da nga ndax la ko xadis ba waxee kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati waaw kenn ku nekk la nga nekk sàmm nga ca te ëllëg yow mal xiyaam dañu la koy laaj waaw kon nag dana baax lool boo balante tudde su doom turu baax dugal ko ci daara mu jàng alxuraan bu mokkal bu ko yàkkamti ah, bàyyi gi nga fay bàyyi muy siifre alxuraan ji dana tax du ko fàtte di sant ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal daara yi muy saas yi asaatis yi wax dëgg yàlla ay professeurs yu xarañ lañu waaw yoo xam ni am nañu tarbiye ñoom ñuy jàngale man nañu li ñuy def. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya idh naadaa rabbahu nidaa'an khafiyya qaala rabbi inni الرأس سيبا واشتعل الرأس سيبا ولمكم بدعائك رب سقيا صدق الله العظيم daara jaa ngi Kër Mbay Fall fa nga demoon fekk fa ndongo yi macha allah Baye Cheikh comme ni nga ko waxee rek Kër Mbaye Fall jëwriñ daara ji nekkoon ci kàddu gi mooy oustaz Adama Fall doon jàmbaar gannaaw ba mu wattoo alxuraan jëlaat léppam jox alxuraanul karim tax mu sanc daara ji ci atum 2004 léegi macha allah mu bari lim bu fay yeewoo di wattu alxuraan toll ci téeméer yu teg juróom benn fukk juróom benn ñoo xam ne ña ngay yeewoo ci daara ji muy góor ak jigéen di wattu alxuraanul karim toll ci 38 personnes moo leen jàngal bañ mokkal alxuraanul karim mu doon jàmbaar bi mokkal alxuraan buy neex ay waajuram dañ koy bàyyiwaat ci ñoom programme boo xamante day am solo moo xam arabe wala français lépp loo xamante xale bi dina ko soxla ci xam-xam rek ñoom daara jooje di duppee Serigne Babacar si pare nañ pour di ci gunge xale bi di ñaan xale yi nga xam ne ñi ngi fa nekk rek yàlla na borom bi subhanahu wa taala defal leen barkeb alquranul karim bàyyi ponk bi ñu ci sësale nag mu am solo lool moom mu wax ko muy mokkal alxuraan ba noppi fàtte ko nga xam ne euh, lu lu lu mat bàyyi xel la ndax dañuy delluwaat rek ci doomu aadama ndax da dañuy wax ne wala qad ahidna ila aadama min xablu fa nasiya ku ne xam ne ne doomu aadama moom dañ ko mooñaale ak fàtte kon fàtt lépp mën naa dagan waaye fàtte alxuraanul karim du dagan ci lenn ci waxi borom xam-xam yi ndax dañoo sukkandiku ci aaya bi naan wa man arada an zikri fa inna lahu maisatan dankan wa naxsuruhu yowma alqiyamati ahma mu ne ki nga xam ne de suñu borom dafa dogal mu mokkal alquranul karim ak càggante dal ko ba mu fàtte ko buñ ne fàtte alquran nag xale bi moom xamagul lan mooy alquran kon ko ko fàttaloo responsable bi mun na maa dégluwaale ci lii may wax Euh, mu sàggan ba alxuraan joojee génnaat ci moom borom bi subhaanahu wa taala nee na bu ëllëg yomal xiyaamee kat kooku buy dekk moom day gumba gumba bu ko defee di nga am jaaxle lool ci loolu la aaya bi dox naan xaala rabbi li ma xasartani ya ahma wa xad kunta basira bu ko defee mu am jaaxle ne waaye yow sama borom yaa ma indi woon yow ko dañ laa joxoon suñu ay kéemtaan suñu ay aaya muy alxuraanul karim nga xam ne ñu bari bëggoon nañ ko mokkal ñu ne leen lii kat fardul kifaaya la ñenn ñi rek ñoo ko mën a mokkal nga sàggan ba alxuraan joojee génnat ci yow kon du mën a ñàkk nag ñu fàtte la kon lu mata bàyyi xel la buñ ne conséquences yi ci nekk loolu lay doon bu ñu ne li koy waral nag nga xam ne mooy tax xale bi di fàtte alxuraan ndax xale mooy mokkal alxuraan bu fekkente ne xale bi dafa nekk ci daara jàng ba waxtu alxuraanul karim mokkal ko yow waajur bi nga jàpp ne foofu rek nga mën a yem ak sëriñu daara bi jàngal na ko ba mokkal euh, nag fekk nga lu kawe lu nu màggal lu nu yëkkati borom bi subhanahu wa taala nga ko muy fekk fekk ki nga xam ne mokkal na ko ca yàkkamti ngir ba mu fàtte alquran jooju bu ëllëgee danga ko layoog borom bi kon nag sëriñu daara ay jàmbaar lañ gis ngeen taxawaay bi ñuy def a toogaat ci biir daara ji mën a jàng lépp loo xamante ni xale war na koo soxla rek rek ñoom sëñ daara yi ñu ngi ci bay seen waar bu baax a baax kon bàyyi nañu bàyyi xel loolu ma indi tey incha allah. donc li ci euh, daara yi tey nga demaloon ñu kër Mbay faal euh, ci euh, borom xam-xam yooyu yore xale yooyu le muy tase bu am solo jërëjëf Mamour ñu ngi lay gërëm bu baax 10h14 mooy doog jot ñu